jom jom mhm. damaa am taar mhm. macha allah. Mhm. je touche du bois. melu ma nenn waaye pour man jigéen ñëpp maay dàq. ndax set naa ah, foo ko teg déglu ma ndax dama set ba pare nekk femme complète togg bu doon facture damay fay ba dee ma dàq togg Sénégal. <laughs> yéen a ngi dégg Adji Mass <laughs> barke Cheikh Abdou Karim foo teg ne yaay dàq mais gëmal sa bopp maa def lu rafet ci àdduna maanaam man. Uh-huh. man dama ñàkk ki ñaan ñàkk ki ñaan bi c'est-à-dire que ni dama supporter tout le monde mm-hmm. man nit boo naree undile wu bañ a redd moom mm-hmm. <laughs> man teg yi ma tooñ mm-hmm. benn affaire mi ngi ci man du ma tooñ du ma fen noo tollu parce que yeneen tibi soo tollee ni gaynde bu ma la bëggee ruux dama lay ruux man du ma fen du ma waaw sànq maa ngi dégg nga naan nit ñi dañoo war a jël seen kurus def astafirullah waaw parce que da nga am problème ak ñenn nit ñi wala non non non non parce que ñoom ñi ngi commenté loo xamante ni wóoru leen ndaxte borom lal bi moo xam matam mooy loolu. des fois ñu loo xam ne. loo xamante ni da ngay toog xam ni kii di commentaire mën na fen <laughs> te barke Seydina Mohamed du ma ni kenn yàlla mi ngi lay gis te gisu la. Mm-hmm. man lu ma wóorul ci nit mbindeef nit mun a am makkaama. Mm-hmm. taxaw moo wax ci nit ki nangam te xaw ma ko ci moom. yow wax ci nit ki rek dafay fekk mu leer non mais man gaynde laa <laughs> man gaynde laa. Mm-hmm. billaay wallaay. mooy loolu Sénégal dañu war a xoolaat seen bopp d'accord xoolaat seen bopp bi mooy mhm. nit ki bala ngaa taxaw ah mhm. di expliquer di di dugg ci ci kii ci ci mbiram wala di ci expliquer wala di ci commenter loo xamante ne wóoru la mhm. bàyyil ba dund li mu dund gis nga nit ki ci boppam da ngay sarin man dama bëgg ko sarin Adji Mass gis la macha allah Adji Mass Sénégal ko bëgg àdduna ko bëgg nan ngay dundee sa koñ ak yeneen artistes yi ba xam amoo leen ay problème comme ñeneen ñi ak yooyu. mukk man duma am parce que mhm. toog Adji Mass benn mbaaco. mukk wala mu benn umu saw ak yooyu. sekkuñu ko ñooñu man man duma gaarawaale ñooñu barke yonent bi pour lan ñooñu yow gis nga gis dafa nekk loo xamante ne dama bëgg ñu bàyyi ci xel. Mhm. c'est des étapes. des étapes. xam nga étapes yi lay wane c'est des étapes. Mhm. avant ñoom Moussa ak ñoom Mbacco am na ñu fi jiitu woon waa Pirates de Jëppal kenn déggatu mm-hmm. ñoom Mbacco ñu ngi si seen fin de carrière. ñu ngi da nga bëgg a wax dañoo xeewi. non <laughs> ma c'est tout un problème. Eh, animas ne eh, bien bien benn la. non na déglu si si. non la wax ni ku ci nekk ku ci nekk say hmm? gis nga àdduna bi lu ah, gis loo gis tolluwaay la. tolluwaay la mooy rek. non non non non non non damay ñëw déglu ma damay ñëw <laughs> uh-huh. gis nga ñooñu dañ fiy jóge seen wàllu wëy ñun ñii tey taxaw ñu ñi dañu apprécier di ñu defal lu nekk dem nañ ba nga xamante ni nii suñu neexee ñu ne soutien sax dootuñu ko jëndati ñun lépp nañuy habillé lépp nañuy may te ñu ñu koy may gënuñu leen gënuñu leen mais yàlla moo moo wax ni ñun ci wax la ñuy jaarale suñu mbir di macha allah. ba lu ñu wax mu neex nit ñi lu neex nit ñi terale ñu ci ñun des sa tuuti dañ fiy jóg ñeneen dañu ñëw waa léegi nag aar bi yaatu na ku mën nga cee bay sawar kon na rafet ndax bu néewee jeex bu bëree jeex pourquoi tànnaa pour pourquoi taxaw di la waxal loo xam te ni amoo ci yow su la ko defal kenn mais dañu seetlu soo gisee ma laal foofu mooy Adji Mass ay vidéo am lu ci dafay mel ne dafa am ku muy waxal man waxuma kenn ah sa feelingu bopp la man samay feeling laay def gaar waale woo kenn yaa ngi dégg mais bi ngay wax ci sumbulu moom da nga doon gaar waale sumbulu bi ngay wax ci sumbulu nag di jëlal suma lu pare nga doon gaaruwaale man amul kenn ku may gaaruwaale si si su ma neexee sax xolal su ma mhm. neexee eh, yaa ngi dégg uh-huh. fii ñëppay gaaruwaale mhm. yaa ngi dégg mhm. mais man sama waxu bopp man maa am naa droit di ci wax vraiment parce que Sénégal gii ku leen maytu dina la dugal ci tout lux mbuj boo xam ne parce que une <laughs> heure trois ñu vaar moo tax danga naan léegi su may waxatee dama naan lii la wax jusqu'à preuve du contraire ah. ku ci ku ma bis uh-huh. dina ñëw dina la faar bien sûr parce que dañ naan moo naan moo feexoon lii li te loolu par épisode la defe naa boo koo ku taxaw tëral la def la mu war a def nga gis li nga gis ci moom nii uh-huh. présent uh-huh. tey li nga ma woon présent soo demee ba woon ma ko futur futur <laughs> mais li nga ma wonoon présent amoo benn darajam ngay taxaw dina la nii nga mel te meloo noonu parce que xam nga nit ñi dèjà dañ lëndam lii ñi léegi dañuy sëgg léegi ni wii siggi ni non mooy loolu da fi bëri moo tax man benn kanam laa xam gis nga man su la meree léegi da nga koy xam suma ma kontaanee léegi da koy xam mm-hmm. du ma jouer le du ma def affaire faux type du def affaire hypocrite du ma def yëfi koromañoo mais say wax daal doy na waar lool parce que da ngay wax di ragaju di wax naa nii ah sëy bi donc pour géwal laa sëy bi sëy bi du fi tasee déedéet du tas du na fi génn fi ba mel ne daal dafa amoon gàngoor goo xam ne daal ñoom dañoo jugoon rek pour xeex ki ngay waxal après Adji Mass di défendre ko non kookoo gis nga kooku mm-hmm. li ma lay li ku ma mënti di bëgg ci àddina bëggale ma sumb rek boo bëggee nekk sa jàmm ñu bëgg leen la noo mënti di toll ki ne sumbalu moom kenn kese laay wàlli bañal ci àdduna tey mm-hmm. damaa bëgg Sénégal gi yëpp xam ko muy kan muy sumbalu yow daal sa lépp sumbalu la waaw sama lépp moom ndax parce na moo tax mm-hmm. man dama reconnaissante man du ma fàtte démb gis nga tey ni ma ñëwee nii nga make up ma nii mm-hmm. <laughs> ah yow uh-huh. ma fi ñëwoon def samay crayon te ne na ba jam ñaajo nga réglé crayon yi defal ma ay brob defal ma lépp ni ba sama kanam gi réglé nii vingt ans. Mhm. lii nga ma defaloon à chaque fois su ma la gisalee image boobu mooy egsi. Euh, su ma la joxul xaalis parce que des fois tamit nit ñi dañuy bokk ko xaalis ci biir ngay daal di wax lu leen neex. non non non non jaralu ma ko ay dóor la quoi jaralu ma may teral. Ah, bokk xaalis ak xaalis. non non ñoom ñoom li teral moo ëpp xaalis. yaa ngi dégg. est-ce que nekkul xaalis boobu moo tax nga leen di. jël non non non man xaalis man xaalis. macha allah sumbulu da li ñu sekk moo ëpp xaalis xaalis du dara. xaalis boole wu leen. boole ak sumbulu. Mhm. wax dëgg yàlla. Mhm. na sumbulu bañ ànd ba dara du dara la. Mhm. na ko ñëpp bàyyi xel mu nekk garmi nekk góor sumbulu xoolal ña ma doon andal démb ak bërki démb. ba tey ñoom lay àndal. sumbulu du changé. ku benn melo la. na meloon démb berki démb moom la mel ba tey wax dëgg yàlla bàccali sempere xam nga ma koy ñaanal yàlla na gudd fan te wér ba fekkee njëriñu maam jaara école personnalité moom da ko yóbbu ci biir dëkk bi <laughs> pour xale am tuuti personnalité yéne ba ma waxee ci yooyu dafa ni ma bu ci waxati nga fàtte bu ci waxati mhm. aji ma sa grandeur weesu na foofu mooy loolu mhm. sa vie la ko pour toi mhm. c'est pas l'appel nga dem ci réseaux sociaux di wax quoi que ce soit après la vie continue te bu doon keneen da lay xamb la gën a def nangam gën a def nangam kooku dafa may assise ah, dafa am ñi ne ñu lay xamb dafa may xam nga kon passé nañ à man ku may yàqal wala di may suusaleeg nit ñi ate Sénégal dañ ma bëgg dafa am fu ma teg Sénégal dañ ma bëgg man mhm. dafa am fuñ ma teg macha allah tey tamit di wax ñu lay déglu c'est pas évident mhm. tey tamit su ma nee su ma nee dama ni ñëpp ni teg wax la nga bëgg ma wax la ma bëgg a wax loolu boo booy wax ñu lay déglu rek xamal looy wax mhm. mooy loolu moo tax encore une fois dama leen ciy jéggaluwaat bu baax sénégalais yi ah wax dëgg yàlla di leen wax ni ku dul juum amul man duma ko soxor man ku ma gis xam ni man maa liggéey maram mbaay tubaali kaar la duma ko bon dañ la ne dangaa baax waaw man damaa baax man man Adji Mass damaa baax. billaay damaa baax. Adji Mass am dégg naa benn sëriñ moo ko takk. <laughs> man wax dëgg yàlla kon wóoruma man Mbathio ay. lu tax ma duggee ci Mbathio rek yow da ngay pousse. Ah, man ah. miinu ma lu may wax ci Mbathio. sànq bi euh, loolu mënut a loolu mënut a nekk parce que xam la moo tax. man xam naa ba pare ma ñëw ci Mbathio nga ne déedéet xamoo ci Mbathio dara. non non xamoo ci xaw ma ci moom dara am naa ci droit te aussi am naa ci droit mais pour man pour xote côté xaas moo tax ma répondre la foofu. côté xaas moo tax moo tax ma répondre. mais xaas mënoo xam léppam. non mënu ma xam léppam mais xaas du dox ci yooyu. est-ce que mu ne doomu aadama nga bañ a xam léppam. man dama bëggoon rek ndeysaan Sénégal ku ci nekk bu lijjanti woon ay añoom bàyyi tuuti <laughs> yàbbi tuuti sëy sumbulu bi a kaas mhm. man dina am lu ma neex parce que ñoo xamante ni ñi ñi ñi ngi leen tapas ñi ngi leen déconcentré nit ñi ñi ngi ñi ngi dem nit ñi topp seen ginnaaw di leen sa ay wax di leen wax lu ne ñooñu gersuwuñu tontuwuñu faale wuñu yëngaluñu mais am na ñu leen di tonteel classe Adji Mass ñu leen di tontoon sumbulu bàyyi toll boo ko écarté mu wàcc la sa donkaasi marqué Cheikh Abdoul Karim yóbbu la réseaux sociaux doo jaar Issa Gueye dootoo yëkkati essentiel <laughs> man ak moom ba ici repose du ma ko yemalee mindeef parce que ki déggoo man la ki raam mhm. di la yóbbu boo amee tànk du la fi bàyyi ki fekk dara mu def fa dara ba dara dara ba nit ñi di too dara ba nga am ci daraja mhm. noo am ci sa daraja sante ko ko kii ni la ma defal du ma ko wecceeku kenn d'accord kon daal yàgg sumul ba aljana nee na ma daal liggéeyal concentré wu te nga te nga te nga teg lu bari na parce que àdduna amul sens. d'accord Adji Mass bëggoon nañoo xam nooy dundee ak sa fans ci TikTok yi est-ce que yaa ngi tontu commentaire ak commentaire yu négatif yi lay waxal ah fois ñu ne Adji li nga wax du li nga def du nii. man te tey ah, benn affaire tamit mi ngi nax sénégalais yi bu baax gis nga su ma la waxee bàjjen benn affaire est-ce que di nga ko gëm. Mhm, sama TikTok sax yoruma ko. ah yoroo sa uh-huh. yoruma ko lu tax da nga jàngul wala da nga mënul. jàng <laughs> man yow tamit léegi léegi lan moo tax yow doo tontu sa bopp. non non parce que man TikTok defe naa ne xale yi njëkk génn écarté di wax ay vidéo ay bal ci biir dëkk man ci la bokk influenceuse yi. Mm-hmm. <laughs> premier tatagole yi buñ fi limee benn ñaareel man lay doon. Mm-hmm. lu leer laa lay wax léegi lan moo tax nga arrêté loolu. téyetoo sa non non non non parce que dama nekkoon ci sama ménage. Mm-hmm. concentré wu. pour wax dëgg yàlla ndax bañ ciy dugg yi tamit gis nga am na ñuy sànni gauche sànni droite. ma ne ah dinaa dem. xam nga. ñii naan kii day xemmem ñii naan kii du toog ci say na amul temps bi xam nga mhm. doyoon na waar mhm. ma ni ma ni léegi man naa def sama kéemtalaay kattam mais xam ma ndimbal na ca fekk loxol borom waa si mu ngi noonu doy na waar léegi ci noonu TikTok bi man mhm. binet moo ko yore ku naan binet Dieng binet Dieng sa mooy sa ménager mooy bind bind aji mas gay te ma te ma musóoru ci musóor bu noir bu jongoma bi xew ku ma ndaw sandee ne aram faxa la woon maa ngi koy nuyu de passage binet mooy non sama ménager dama lu tax nga créé sa ménagère yàlla man ko sumbulu moo nekkoon sama ménagère bu jigéen. ok baax lool. Mhm. nit ñëw ni ma ajima sa vidéo yi ngay sànni mën na jur lu nekk. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. fekk gëmu ko keroog ba ma nekkee sama ménage bi am ci problème. moo dugal tànk dugal loxo. fen si ay fenam ti góor ma classé ko moo yoroon Instagram bi Instagram bi jarul kenn ci demati ndax dinaa ko supprimer. ut keneen yore ko incha allah. Ah, ndax man daf la fenal waaw comme li nga wax sànq bëggoo ay fen. dama wax dëgg yàlla kooku dama ko teg. mais mën nga ko woo ngeen toog. non non non parce que Adjimass ñu dul jotee amul. de toute façon mooy que euh, ngi marché. Uh-huh. beneen moo ko yore ku def Adjimass Gueye uh-huh. boo ñëwee. directement dina di nga di nga ko gis. ok Adjimass. waaw foofu mën na fa wax man may def samay direct incha allah. d'accord. kon léegi Adji Mass nee na moom bientôt incha allah dina supprimer euh, Instagram moom bu bees bi waaye tamit ñu daal di gis ñaar yi nga xamante ne nii ay artistes lañ bëggante woon lool fa leen mosoon a fekk dañuy kaf di reetaan ba ci ngénte doomam ja sax moom dem na muy Pendo Guissé ak Oumou Sow yàkkante bi ci réseaux sociaux yi lu sax laaj ci loolu ah man nag wax dëgg yàlla man xam nga xam nga sama bopp laa géré war wax dëgg yàlla na du ma wax waxu jàmbur mm-hmm. rawatina sax ñoo xam ne nekkuñu fi duma wax seen wax